ɓeɗo jiinilam abide rafinda sofeyde fin harite mawɗo jiinilam gis ngeen mi ngi noonu l'enfant de Thiaroye le fils de Thiaroye il l'a terrassé mais guy gi dama gis ne guy gi dafa topp xeex bi Reug Reug da kaa guy gi ba tey mi ngi toog guy gi ba tey mi ngi toog fi ma nekkoon guy gi ba tey mi ngi toog ndeysaan est-ce que amul lu koy metti est que amul lu koy metti est que amul lu koy metti est que amul lu koy metti guy gi ba nga toog fi mu toog rek ci digg géew bi est que amul lu koy metti tànk bay métti tànk bay métti ndeysaan tànk bi mooy métti Gouye Gui s'est blessé tànk bi mooy métti il s'est blessé Reug Reug mi ngi noonu mi ngi continué def di def ay jumikaayam jumikaay après combat jumikaay après combat lay def ndeysaan Il sera un grand champion dans l'arène. Il sera un grand champion. Il ne badine pas, il ne triche pas. foowul kaful ndeysaan kokoy Reug Reug kokoy kokoy Reug Reug il sera ndeysaan waa kër guy noonu ñu ngi wax ak guy gi ak seen coach ndeysaan oh, ngi jooy ndeysaan ñu ndeysaan guy gee ngi noonu di génn. lan moo la dal ci tànk. lan moo la dal ci tànk. damaa gaañ damaa gaañ. avant combat bi wala. avant combat bi. ah. nanu mën a bëre combat bi lan moo tax nga ñëw bëre. lan moo tax nga ñëw bëre.